est-ce que la finalité de Yewwi Askan Wi en tout cas ci 2024 bi ñu jëm du mooy tas tasaaroo parce que amee ngeen ñaari objectif élection territoriale élection législative àndandoo ngeen ko mais élection présidentielle bi yéen ci seen i charte ci Yewwi Askan Wi moo nekkoon ku nekk da ngay demal sa bopp bu ñu demee ba ci cëppandaw kii jël pee ñeneen ñëw ànd ak moom euh, jàppale ko wala euh, jox ko li nga xam ne moom mooy euh, li ñu am ci ay voix est-ce que donc finalité wu yeewi askan wi fii ñu toll nii am ngeen tey léegi léegi libre ngeen muy taxaw muy kon kay kon kay yow kon kay Mansour kon kay yéex nga problème bi en fait yeewi askan bi man am na ma ci xam modestement hmm. wax naa sànq ne axe Sonko Khalifa moo ko taxawal keneen ñëpp dañu fekk si dugg si c'est Sonko et xalifa qui ont été les artisans de Yewwi Askan bi charte bi dafa ne local. loolu mooy sos gu mujj gi. ah loolu mooy sos gu mujj Yewwi Askan ban mujj mooy bu mujj mooy lan. sos gu jotaay bu mujj bi. déedéet pourquoi jotaay bi ñuy taxawalee Yewwi Askan Wi koy initier du woon. du woon ah non non ma non non laa fi désolé walaay Azim walaay Askan bi bi muy judd brib bi brib c'est-à-dire le no paper le draft zéro bi taxawal Yewwi Askan bi. ñoom ñaar la. du ñoom ñaar sax seen ay njoñ la. d'accord ñett lañ ci laa bokk. d'accord continuer ci question bi ay non c'est important pour dire que ñoom ñaar ñooy axe bi ci lañ ubbi pur ñëw ñeneen ñëw peut-être bàyyi ñeneen ñëw ñeneen ñëw ba mu taxaw tey. ñu ne dañuy ànd local moo gën a métti ah. local moo gën a métti def ay on a réussi à mu métti lool ñu ne législative mu métti lool ñu ja ci liste nationale bi gars yi invalidé ko injustement ñu dem ak suppléants yi dem ñu fa xeex am 80 députés. non ça veut dire léegi objectif atteint. non jeex na def na benn non non def na benn def na benn. ba am solo dañu ne woon dañuy ànd mais on va favoriser les candidatures multiples mais avec un programme minimum commun ñu ngi ciy liggéey chaque parti day yónnee kenn mu ñëw ñu liggéey ci programme minimum bi ñu d'accord bu ëllëgee ku nekk candidat dem deuxième tour ñu jàppale la te ci loolu lañ nekk. gënuñ ci bële da ngeen di sot sotloo. sot sotloo kan. yeneen candidats yi fi war a mën a nekk. comme ñan bu fekkente ne bëgg a def programme minimal boo xamante ne peut-être dafay bokk comme comme ni nga ko waxee euh, maanaam seen gis-gis dafa dafa xaw a jëm ci benn côté la moo tax sampoo leen kenn euh, pour mu nekk président. Yewwi Askan Wi c'est une bonne question xam xam na ne opposition sa mooy la place de candidature au premier tour. il faut ouvrir élargir ñaan ak Déthié ñaan ak Khalifa ñaan parce que boo ne kenn la rek kenn kooku. mun na bañ nax keneen ki mbaa mu bañ nax ñeneen ñi mais boo ubbee tu fragilises le pouvoir dina am forcément yéen yi sera au second tour. mais forcément multiplicité wala pluralité candidature yooyu tamit. face au waaw face au président. day xaw a jafe aussi. non mais Ibrahima boo xoolee 2000. Mhm. xool 2012 loolu moo ëpp solo. candidature unique amul njëriñ. da ngay da ngay sa large eh, Moussa eh, waaw Moussa hmm? Moussa xaaral benn benn benn kii benn wii u noor lay doon càll dimbali ma càll la commencé dafa mën na moon nga ngi gisee moo tax waaw waaw dama ko nam Moussa waaw euh, seen principe Yewwi Askan Wi mhm. mooy bu ngeen àndee local législative présidentielle ki génn deuxième tour yéen ñëpp ngeen jàppale incha allah d'accord mhm. euh, def ka def face kan hmm? def fas kan def face beneen candidat bu dul Macky Sall bokk ci élection hmm. non man Mansour je suis intransigeant nekk deuxième tour. non loolu xam nga la. jàkkaarloo non non ça dépend mais mais non Birahim ah, xam nga Cheikh Diallo. moom moo tax Cheikh Diallo Cheikh Diallo Cheikh Diallo seen confrère Cheikh Diallo. docteur Cheikh Diallo dafa bind o lendemain de l' élection de 2019 benn article bu mag tuddee ko le can le syndrome du canard boiteux wane na Macky bokk ci élection bi ñëw kaam moo nar a am problème mu tànn lii daa tax ne génn na ci loolu moom mun naa Macky Sall candidat léegi xam ñu ba changé nañ position mais seen seen choix la man fa ma nekkoon démb laa nekk tey APR wala benn bokk yaakaar day bokk ci élection bi day am candidat warul nekk Macky Sall man loolu laa gëm. ay ay ay